musuma fàttali ko fu ma dompte nit wala ma teg nit fitna kii ma teg fitna bi nag eh, gënalu ma waaye barke Serigne Saliou Mbacke lu ko ji barke Serigne Saliou Mbacke barke Serigne Saliou Mbacke lu ko ji du ma dund ren ba déwén te déggu lañu ni ne si jafe-jafe li ëpp solo sax mooy si jafe-jafe waaye bu amul sens dëgg ay mbokkam danañ ko leen denc ko ndax xam naa ni tooñ na ma tooñu xol la ma tooñ 어, 너무, 너무, 어, 너무, ilahe illallah toj na ma toj na ma toj na ma toj na ma lool billaay du ma ko baal billaahi wallaahi taala li ma def ñu lay ñu euh, di leen jaajëfal yenn euh, sénégalais yi ñu doon euh, seetaan